إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني
أحمدك ربي كما علمتنا أن نحمد وأصلي وأسلم على خير خلقه محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة ونصح الأمة حتى تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك ما من خير إلا دلنا به وما من شر إلا حذرنا منه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين mbokk jullit ñi asalaamu aleykum jamian wa rahmatullahi wa barakaatuhu daarul birri tv mi ngi del siwaat ak yéen ci émission bi nga xam ni mooy baytul muslim mu jagleel ko ci koor incha allah tey noo ngi ñëw ci juróom-ñetteelu bind bi juróom-ñetteelu bind bi tey mi ngi jëm ci koor ak mbóosóor koor ak mbóosóor muy bu la neexee nga ni koor ak caaxaan loolu kenn ku nekk xam na ni koor jaamu yàlla la boo xam ni nit ki di ciy dugg pour mu defaral ko jaamu yàllaam ndax ñàkk a lekk ak ñàkk a naan metti na metti goo xam ni nit ki war naa mën a yar boppam ba yàlla nangul ko kooram yàlla nangul ko koor gi nag day tënku ci ay cëram benn bu ci nekk woor comme ni biiram wooree ci ñàkk a lekk ak ñàkk a naan te moo ci jiitu kon biir bi li nu ko sant ginnaaw fajar ba jëm timis mooy na fexe ba bu mu ci dugal lekk walla naan ñaareel bi nit ki war naa góorgóorlu ba sàmm wanteeg bëtam bët tamit dafay woor kooru bët mooy xool li ko islaam xoolloo te mu yem ca xool li borom bi daganal mu xool ko li xaram mu daw ko kon na yëg ni ay bëtam bis bu borom xoolee lu xaram ci tayeef rekk na yëg ni loolu dana yàq kooram dana ko tilimal ñetteel bi mu fexe it nag ba noppam na woor ni cëram yi wooree koorug nopp gi mooy déglu lu dagan déglu lu baax déglu mbirum diine waaye mu moytu déglu lu xaram su dégloo lu xaram te tey ko day am bàkkaar comme ni kiy def lu xaram ne def amee bàkkaar kon na yëg ni nopp tamit kooram mooy ne nit ki góorgóorlu ba moytu lépp loo xamante ni dana koo araamal ci moom lu mel ni déglu ay caaxaan ak i mbóosóor nopp loola mooy nekk participation ci koor gi waaye làmmiñ it nag ci koor gi na góorgóorlu ba mbóosóor yi mu mucc ci ci wax loo xam ni islaam da ko koo tere walla mu nettali lu nu araamal walla muy wax waxi caaxaan kon làmmiñ bi kooram mooy nit ki na téye làmmiñam wulis li yàlla daganaan kon bu yeboo na xam ni làmmiñ kooram mooy du rekk ñàkk a lekk ñàkk a naan waaye nit ki day téye làmmiñam ci saaga ay jullit ci ŋàññi ay jullit di jëw ay jullit di wax lu xaram loolu na ko nit ki moytu ci làmmiñam su ko defee pëyam it day woor waaye kooru pëy bi mooy na moytu nag ba bañ koo jëmee ci lu xaram bañ koo jëmee ci lu yàlla xaraamal ay tànkam it na woor bañ a dox jëm ci lu xaram ay loxoom na woor bañ a laal lu xaram kon loolu yépp bu ñu ko boolee dinañ gis ni ndeke aji woor ji war naa fexe ba moytu mboosóor mboosóor moomu nag yonent bi nga xam ni moom la yàlla yónni te mu bëggal xeet wi aw yiw moom day daf ñu doon wax ne ñu jëlee ci xadiisu abu hurayrata radiallahu anhu wa ardaahu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man lam yadac qawla alzuuri walcamali bihi waljahl falaysa lillahi xaaja fi an yadac tacaamahu wa sharaabah rawahu lbuxaari yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu nettali ñu xadis bu yéeme bii nga xamante ni bu nu war a bàyyi xel la nee na képp koo xam ni dafa woor te wooram taxut mu bàyyi waxu caaxaan muy xawlu zuur xawlu zuur mooy di nettali caaxaan nettali caaxaan fenn ca la bokk kon ki woor dafa war a moytu di wax lu dul dëgg ki woor dafa war a moytu di jëw waaye ki woor dafa war a moytu it di nettali nettali lu tudd ay maye ak nettali sos loo xam ni yaa ko wax rekk ngir nit ñi reetaan ak waxi caaxaan nit ki loolu war na koo moytu waxi caaxaan yooyu nag képp bépp jullit bu woor même sa liggéey waroo caa def lu xaraam ndax islaam dafa tere yu mel noonu kon nit ki warta liggéey ci fen warta liggéey ci loo xamante ni dafay siiwal lu xaraam maanaam nit ki mi jël métiem nar a nekk di siiwal lu bon ci télé yi walla ci rajo yi di publicité loo xam ni islaam da koo xaraamal maanaam publicité njaaloo walla publicité musique walla publicité loo xam ni jëmul ci diineem kooku na yëg ni dafay dugg ci lu borom bi wax inna alladina yuhibbuuna an tachia alfahisatu fi alladina amanu lahum azabun alim borom bi nee na ñii siiwal ñaawteef ci kanam ñi gëm yàlla am nañu mbugal loolu bokk na ci ngay publicité xeesal bokk na ci ngay publicité njaaloo bokk na ci ngay publicité ay dancing bokk na ci ngay publicité lu jëm ci concert wala yu demee noonu nit ki na xam ni bu wooree dafa war a moytu lu mel noonu rawatina nag bu ñu jubee kori ngay siiwal lu mel noonu cib jullit xaalis boo ca am na nga yëg ni yaa ngi dimbalante ci lu xaraam te borom bi dafa wax ni wa taawanu ala al birri wa taqwa wala taawanu ala al ismi wal udwan dimbalante leen ci mbaax ak ragal yàlla waaye bu leen dimbalati ci ay caaxaan wala amali bi yonent bi nee na ki woor dafa war a bàyyi waxi caaxaan waaye jëf-jëfi caaxaan lu mel ni woor ba pare di jëf lu ñuy tuddee comédie woor ba pare di nettali loo xamante ni yokkul kenn ci diineem di reetaan loo nit ñi ci loo xamante ni bu dee sax lu dagan la mën nga ni loolu taxute ëpp waaye di nettali loo xamante ni nit ki jëf yi muy jëf masalan nekk ab comédien en tant que góor nga nekk góor di sol yëre jigéen pour sa comédie jàll wala nga nekk góor di greffage di puudaru te am na ci suñu comédiens yi ñuy def lu mel noonu la àlla seeni kilifa dinañ leen wax ni lii xaram na ñaaw na jullit bu góor bul jël liggéeyu comédie ba tax nga nekk góor bëgg a nettali jigéen sol col gu jigéen di sol lu mel ni zipp walla nga sol col bu ñu xamee jigéen su boobaa yaa ngi def taxannus yaa ngi jëlee sa bopp ci góor di yóbbu sa bopp ci jigéen mooy yaa ngi jëf-jëfi góor jigéen léeg-léeg nga gis comédien boo xam ni dafay greffage tagalu puudaru faaru ngir rek li mu bëgg a nettali àgg ci nit ñi ngir ñu mën a ree loolu bi mu ko defee mi ngi reetaanloo nit ñi mais na yëg ni ca saasa muy def loolu yàlla jéppi na ko ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla rëbb na góor guy jigéen jigéen lu waaye yàlla rëbb na jigéen juy góor góorlu kon comédien it nanu moytu lu mel noonu moytu col colug jigéen su fekkee jigéen la waaye moytu colug góor su fekkee góor la fa moytu solug jigéen bu fekkee góor la waaye moytu colug góor bu fekkee jigéen la alal bi nga ciy am na nga ko moytu ndax dafay dugg ci walla amali bi walla amali bi bokk na ci it nag woor ba pare di musique moo xam da ngay tëgg musicien bi di way walla da ngay way tëggkat bi di tëgg loolu lépp dafay dugg ci li yonent bi tere beneen xadis a ngi nii bu riwaaya imam ahmad yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne rubba saa'imin xazuhu min siyaamihi l juu nee na bëri na koo xam ne dafa woor cërëm ci koor gi amu ci lu dul xiif rek ndax woor ba pare di comédie woor ba pare di reetaan loo nit ñi woor ba pare di fen di nettali lu xaraam woor ba pare di théâtre di jëb lu xaraam loolu jullit bi da ko war a moytu nee na kon am na koo xam ni kooram xiif ak mar rek la ci am waaye nee na wa rubba qaa'imin xazuhu min qiyaami sahar bëri na kuy taxaw guddi gi di naafila cërëm ci kooram moom mooy rek ñàkk a nelaw kon mbokk yi jullit bu woor na moytu woor ba pare di dem ci place yi bu dee góor la walla jigéen la ngir dàqi koor léegi rek bi may dem Malika fi may tourné pour jëm ci kër ga ma jëm maa ngi seen xale yu jigéen yéeg yu góor yi ñu ngi jiitle fan lañu jëm tefes bu ñu àggee tefes jigéen ñi dañuy futteeku di sangu góor ñi di futteeku di sangu mu mel ni tefes bi da nga naan tefesu Naples la wala tefesu France nga xamante ni jullit yu jigéen ñi tey ñooy sol yére yu bon sol ay soutien-gorge def yaramu neen di sangu ay xale yu góor nekk fa ak ñoom loolu mbokk yi xaram na bépp jigéen bu koy def sóoroo ne bis dana ñëw da nga dee bépp góor gu koy def sóoroo ne bis dana ñëw da nga dee naam mën nga àgg sax ci ne maa tey waaye lu la neex defal bokk na ci ñiy woor toog foofu ci place ya yore seeni lido yore seeni damier yore seeni carte di bolot woor di bolot woor di mariage woor di lido yooyu yépp dafay dugg ci wal amali bihi nit ki war na ko moytu waaye bokk na ci woor ba pare sol yére yu xat wala yére yoo xamante ni dafa centré wala yére yoo xam ne day attiré góor loolu ci jigéen ñi lay jëm ñoom jigéen ñi ban nañ ko sax ba yére yooyu provoqué lañ ko tuddee kon war na ñoo xam ne lu dul weeru koor xaraam na waaye ci weeru koor dafay gën a xaraam ndax da nga causé yàq kooru xale bu góor bi nga xamante ni fii qalbihi marad jë beneen bi bokk na ci koor jaxaseeg jigéen ñi ci góor jaxaseeg góor ñi ci jigéen maanaam mu mel ni dem place woor ba pare ay góor ak jigéen nekk mel ni nekk ci weeru koor tàppante dàqante def yoo xamante ni jëmm ju yëf yëf yu ñaaw la islaam da koo tere loolu war nañ koy jàngal société bi ndax kuy woor dangaa bëgg yàlla nangul la sa koor waaye bokk na ci woor ba pare di déglu musique loolu tamit julli bi da ko war a moytu soo wooree moytu loolu waaye comédien bi nga xamante ni wala animateur bi nekk ci rajo beeg télé bi woo eeru koor na yëg ni waru cee def musique léegi nag da ngay fekk suñu réew lu bari da nga naan nit ñi diine la ñuy jàng wala dañuy fooye diine comédien bi ci weeru koor di continuer wala animateur bi nee na ay weeru koor dootul teg musique Youssou Ndour wala Baaba Maal waaye day teg Ummu Kalsum wala mu teg benn waykatu arab muy way arabam donte yonent bi lay ay way bu amee instrument musical ñoo bokk benn atte su fekkee ni gëm nga rek ni musique dafa haram kon nag déglu Ummu Kalsum ak déglu Youssou Ndour wala Kumba Gawlo ñoo yem dang dafa aram kon nag bu la neexee soo gëmul ni yow foo wooree war ngaa mën a déglu musique kon lu la neex defal ndax yonent bi nee na ida lam tastahi fasna bi ma sita jullit daal bu demee ba amul kersa ci boroomam lu ko neex def waaye na yëg ni bis dana ñëwit boroomam def la ko neex beneen bi moytu woor ba pare di carte moytu woor ba pare di péemi moytu woor ba pare di loterie moytu woor ba pare di jéem a ut alal bu xaraam di ko dugal ci sa bopp beneen bi bokk na ci woor ba pare di seetaan ay film yu xaraam yoo xamante ni ci sa télé nga koy seetaanee wala sa télé ci poche nga koy seetaanee muy portable yooyu ngay seetaan na mu araamee woon nga jàkkaarloog moom mook nga gis ko ci image ñoom ñoo yem kon mbokk jullit ñi ñu xam ne jullit dafa war a góorgóorlu luy defar kooram mu sàmm ko ndax fa ñu jëm dafa sori te ñaari kër rek moo fa am àjjana ak safara boo àggee nag benn rek nga ci mën a jëm yàlla nañu yàlla may ñu jëm àjjana wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني